Euh, di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam xam naa ci moom la ñuy jaar jël nuyoo xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp teg ko ci loxoom euh, nuyu tamit kilifa aada yi euh, jaar ci ki nga xam ni moom mooy le sous-préfet bu waajur monsieur Ibrahima Ndaw di jël nuyoo administration Sénégal bi yëpp di ko teg ci loxoom waaye nuyu Mamadou Ngom jaaga mi nga xam ni moom mooy maire waajur nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi Euh, ñu ngi toog fii ci waajur comme ni niñ leen ko waxee sàng rek ci reportage boobu mu génn euh, ci gàmm gi nga xamee ni macha allah euh, njabootu waa waajur ñoom ñoo ko wootee tey ci samedi ji le 17 décembre 2022 waajur nag bu buñ ko tuddee xel dina dem ci honorable député madame Ndiaye ne Ndeye Dia mi nga xamee ni macha allah fii la dëkk ci waajur waaye nekk député département bu Gossas waaye nekk tamit euh, koo xam ni mu ngi doon ànd ak aadama euh, Diallo euh, maire bu Gossas waaye nekk en même temps directeur général bu Petrosen waaye mu nekk ku am ay taxawaay moom soxna Ndeye Dia honorable député moom la ñu toogal nag war a waxtaan ak moom ci gàmm gi nga xamee ni ki nga xam ni mooy monsieur Adama Diallo maire Gossas nekk directeur général Petrosen daf ci am cër cër boo xam ni cër bu yaatu la cër boobu nag Euh, moom mën na cee wax ndax moom ku ko xam xam aadama Diallo xam ni benn lañ waaye euh, mën naa wax tamit ci gàmmu euh, waajur ndax waajur la dëkk waajur la ay kilifaam nekk waaye waajur la yeewoo kon ñaari tànk yooyu moo tax Thiénaba TV bi mu ñëwee dugg waajur mu ni nag faaw mu ñëw ci moom jàkkaarloo ak ak ak moom yàlla def tamit ba élection yi génnee ba léegi tooguñoo ak moom may ko occasion xaj na mu waxtaan ak waa Thiénaba waxtaan ak waa Sénégal waxtaan ak mbokku téléspectateurs yi honorable député ñu ngi lay nuyu dañ lay jox kàddu gi rek bu ko defee nga nuyoo ak téléspectateur bu ko defee ñu nekk mu nekk laaj ak tontu. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Thiénaba TV. Mhm. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. di leen ziar bu baax a baax ci dëkk bu tedd bi ngeen jógee. Mhm. man maay soxna Ndeye Dia mhm. honorable mhm. ma dem Ndiaye mhm. dëkk fii nag ci waajur fier lool nag ci waajur ci waajur waaw macha allah euh, xam naa di nga wax tuuti kan mooy soxna Ndeye Dia dina jafe trop nit wax boppam waaye nag ngir kiy seetaan rek mu xam ki mu jàkkaar loolu kan la kan mooy soxna Ndeye Dia soxna Ndeye Dia daal soxna la soo xamante ni rek mi ngi juddoo fii ci waajur mooy cosaanam mi ngi juddu nag 1976 di di def nag politique yàgg politique nag. Mhm. ba yàlla indi nag ku ñuy wax aadama Diallo. Mhm. muy maire gosaas mhm. actuellement nii. nekk DG. Petrosen. nekkoon tamit président conseil départemental 2014. ñun nag commencé nañoo ànd ak moom. 2012. lañ commencé ànd ak moom di liggéey. boobu mu ngi nekk ci parti bu ñuy wax modèle. mu jóge ci modèle. def kër ya àndu nawle. àndu nawle moo gagné woon département Gossas mhm. yow nekk conseil départ mais président conseil départemental mhm. man ma nekk conseiller départemental 2014 mhm, ba léegi ba ren jii nag yàlla dogal ñu gañewaat àndu nawle boobu maire bi fi nekk nii muy monsieur Diaga Ngom man ci adjointe yi laa boobu adjointe au maire adjointe au laa waaw macha mu nekk lu am solo kon dégg ngeen euh, honorable député madame Ndiaye ne Ndeye Dia Euh, macha allah en même temps aussi adjointe au maire euh, fii ci commune euh, bu Waajur dégg ngeen jaar-jaaram ni mu ko nettalee ànd ko ak ki nga xam ni moom mooy aadama Diallo maire bu Gossas ak. ñi nga xam ne ñoom la àndal ci wàllu politique mhm. euh, soxna Ndeye fekk nañ la tey sa fief mhm. euh, fekk la sa dëkk bi nga cosaanoo comme ni nga ko waxee mhm. euh, muy waajur tey nag nekk gàmm goo xam ni gàmm gu mag la ñu yàgg ko organiser waajur nag nekk dëkku cosaan ndax wax nañ ñu ni 1809 lañ ko sos 1809 ak léegi ay at la gàmm waajur gi yan taxawaay na ci am ren gàmm gi xanaa di ci kontaan bu baax rek di ci bëgg di ko waajal nag chaque année. Mhm. di ñaan yàlla nag at mu ñëw rek. Mhm. dàq at mu ci topp. Mhm. ndax fierté la. ndam la ndax gàmm gi. ñëpp a koy bëggee. di ci woo suñuy mbokk yëpp. sëriñ si di ci ñëw. ñu di leen ziar yéen na ba TV. ngeen di ñëw ñeneen ak ñeneen. ñu di ko dundee mu di ko yàkkamte at mu jot. di ko préparé nag ak ni ñu ko war a préparé woon. Euh, ren euh, ki nga xam ne moom nga àndal ci wàllu politique muy Adama Diallo am na ci cër yaakaar naa ne. waaw euh, moom lañ parrainé bés bi. moom lañ parrainé parrainé bis bi. xam na waaj nii sax mën nañoo mën nañ laa laaj. ni la ndax moom day ñëw def délégation wala yow yaa koy teewal wala nan ngeen di waajee jëm ci cérémonie bi. waaw moom nag moo waroon teew. Mhm. mais dafa am empêchement. xam nga mhm. moom jaamu jàmbur la dañ ko oo. Mhm. président njiit li daf ko mhm. oo. mais yónnee na délégation. ñu ngi préparé wu nii. dañoo war a def délégation. bu mag ñëw teewal ko. ci kanam tuuti teewal ko ci kanam. Euh, kon mu ngi noonu kon yow mi seetaan gis nga ko ajaratu euh, honorable député madame Ndiaye ne Ndeye Dia. Euh, macha allah dégg ngeen ko waxal na yëkkati na kàddu Adama Diallo maire moom mi nga xam ne moom la ñu parrainé bis bi. Euh, jëloon programme rek bëggoon a jiite délégation bi waaye euh, président de la république euh, woo ko ci ay mission muy yabal war a dëkk yabal délégation boo xam ni moom dañuy ñëw ànd ak honorable député ñu dem teewal ko ci jataay bi tey yaa ngi jàkkaarloog mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo la fal yóbbu la assemblée nationale ñu gis ni plénière yi yaa ngi def ay sorti yaa ngi defendre sa gox bi nga jógee nde mission boobu fi ñu nii lan nga ci mën a wax population mission bi. Mhm. comme ni ma ko mën a waxee rek ñun mhm. dañ ñoo fal. Mhm. population département Gossas. moo ñu fal. département Gossas nag nekk six communes. kon ñun suñu demee foofu. ci plénière yi. commission technique moo njëkk a commencé. commission technique. vingt neuf jours la. commission bu ministère bu ne. day ñëw indi. li nga xam ne moom la bëgg ñu. defar ko ci budget bi. ñu kenn ku ne jël kàddu wax. sa dëkk mhm. ministre ministère bu ñëw mhm. dangay jël kàddu wax dëkk bu nekk mhm. lafa ñàkk nga wax ko bu ñu ñëwee plénière dañuy indaale réponse yi indaale rapport yi nga xam ne mooy li nga xam ne moom la ñu war a def ci deux mille deux mille treize bi moom la ñu war a def léegi nag loolu noonu. Mhm. da ngay jóg nag. Mhm. ndax ñun askan bi moo ñu ñor. Mhm. ñoo ñu fal su du woon ak ñoom du ñu fal kon ñun askan bi rek. ñun dañ ñoo yónni. ñun nu ñu war a def rek mooy jottali seen yónnent. ba pare nag topp ko. ba xam li ñu yónni. dinañ ci jot wala duñ ci jot. topp ko nag di bind. di di waxtaan ak ministres di leen envoyé ay message di leen laaj fu ñu toll ci liñ leen wax. Mhm. loolu daal ñun mooy suñu taxawaay. Euh, tey su mu nekk nii boo doon def euh, bilan à mi parcours. Mhm. maanaam euh, commencé nga di défendre sa gox. Mhm. sa département tey fan nga toll ci loolu maanaam yan satisfaction nga ci am yan mbégte nga ci amagul. am naa ci mbégte bu baax. parce que mi ngi jëm ca kanam. ndax lu mel ni comité bi nga xam ne ñoo yor wàllu santé mhm. ministère bi yor santé mhm. indi na réponse am mhm. li ma ko waxoon ci commission technique indi na ko nee na fas nañu yéene defar ko deux mille kii bi deux mille vingt bi ñu nekk nii fas na nañu yéene def loolu ak yeneen ministère ak yeneen ministère infrastructure tamit moom it wax na mi ngi tali piste yi route bi jógee euh, Gossas mhm. jëm ba Guinguinéo new mhm. yëpp dugal nañ ko ci rapport bi mhm. kon loolu ñun ñu ngi ciy gis ay yokkute te loolu lañ doon ñaan ndax ñun askan bi moo ñu fal moomu ñu suñ bopp askan bi lañ fa nekkal macha allah euh, léegi lan ngay wax euh, population bi jàkkaarloo yow ni woon de man heure bu ma amee occasion jàkkaarloo ak dip ab député wala heure bu musaa Ndiamé Guèye jàkkaarloo ak député dinaa ko yóbbante laaj bi laaj bi mooy assemblée tàng na de tàng na jër. tàngaay woo nu ngeen ko dundee. ah xanaa jéem koo jànkonte rek. Mhm. ndax nit ki moom lu ko jógloo. Mhm. da koy wax loo. Mhm. te maanaam xeex ak xuloo. amul njariñ. ti ma koy waxee toujours. ndax boo xeexee mun nañ la gaañ mun ngaa te boo paree tamit conséquence moom du mën a ñàkk. ñun daal li lii suñu yitte. mooy wax soxla askan bi. ci jàmm ak ci yar ak ci teggin ak ci dal. ak ñëwaat toog ndànk. daal euh, lañ koy dundee. département Gossas. Euh, këru diine wala ay këru diine nekk ci euh, mën nañ cee lim benn ndax Thiénaba TV muy euh, Thiénaba Gossas Thiénaba Gossas ak ki nga xam ne mooy honorable député madame Ndiaye di Ndeye Dia yan taxawaay la am au niveau de l'Assemblée nationale Thiénaba Gossas mhm. xanaa ñuy suñuy sëriñ nag mhm. ndax xalif bi mhm. maam Assane man sax sama maam la maam laa koy wax mu doon koo xam ñun ñu nekk ay taalibe mhm. ñun ay taalibe lañ ndax ñun dañ suñu papa mhm. taalibe Cenaba la mhm. suñu borom kër taalibe Cenaba ci Cenaba lañ ñu nàmpatal bañ nekk tolloo ay tout tànk la ñuy ànd ak suñuy maam di gàmmu ji ba fi mu toll nii may wax yow mosuma rate gàmmu kon ñun ay taalibe lañ yëfu taalibe rek la ñu séq ak la macha allah euh, macha allah honorable yaakaar naa yaa ngi am gan ndax kàddu googu fu ma ko dégg déggee sëñ Pape Seck Mourtada sëriñ mu dañuy ànd ak moom ànd ak Thiénaba TV euh, ñu nataal ko euh, won ko askan wi ndax dinañ ci sawar kon. ah di wax sëñ Pape Moutada yàlla nga fi yàgg te nga fi yàgg te wér. yàlla nga fi yàgg te wér. képp ku ne am it yàlla nga fi yàgg te wér. ah li nga wóotu di Seex Madika Seck rahmatulahi alayhi ah yàlla na xippee ji àjjana firdawsi ah ndax li ñu saako ji si yow ah, sa papa da koo defaloon papaam. mu woo ma ni ma biraan loo ma mën a defa si àddina sëñ Pam Moutada bu tegoon sama tànk si kër gi dong su génnee su ma dee dem àjjana mi ngi nii barki yonent yàlla Muhammad loolu la ma wax ay doomu nday lañ ñoo bokk lépp mun ma loo ma mën a defal si àddina gëm naa papaam ba mu xëy dem mais fi ma teg sëñ Pam Moutada yaakaar naa teguma fa papaam ndax papaam dafa am lu mu defaloon sama papa boo gisee keroog mu wax la ko ne la ah lum xat-xat soo ñu ko mënee may dina doon li gën su ñun encore mu bëggoon nga wëlbatiku nga ñaanaaleel ko soxnaam si ndax wax dëgg yàlla gàcce moom kenn du moom ñii toog nag ay rakkama fi toog ak i magam ak i ñu mbokkandoo di liggéeyandoo ak i jarbaatam kër gi loo fi ñaan dina nangu ndax dox bi ma la dox woon ni dong wallahi asim gëm naa loo fi ñaan ma nangu ki si gën ndaw sax bu ñaanoon mënu ko si barke Seydina Muhammad ñoo ngi jéggalu nag ah boo gisee ma bi kaddu comme ko da koo sàkku woon si man rek moo tax moo ko wax dëgg yàlla bu bët ki dem loo mujj na biraan est ce que li ma la waxoon wax ko man ko incha allahu de baay ma dikk señoon bi ma waxal mu toog moo ko bàyyi Abdourahmane toog li ma la wax nii dina ko def ah kon nag ñoo ngi jégalu ndax it jógloo leen yombut te damaa jóg doxloo leen fii ñoo ngi si jégalu bu baax a baax du ne nag sëñ Khalifa Ndiaye ndax lépp moom moom la ndax bu ne du du dem du dem mais nag xam nañu lépp surtout si la ak def si la ñoo ngi si jégalu bu baax a baax di si am kontaan bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. allahu alaaji biram mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax baŋa ne sëñ Cheikh lii am. macha allah way juróom amoon na ko ci way juróom rek boobu la wax ji tënku ifaadatika minka ilayka bokk jullit yi macha allah sëñ seex mii bu njëkk woon ci man du si ci yow ndax moom xam na ni ñoo bokk lépp doon ay xarit mu yàgg ma bëgg eh, ñu bokk dëkkuwaay macha allah mu ràññee ma lool ngir yàlla ak Seex Canaba may ma ràññee ko lool ngir yàlla ak Seex Canaba muy xaritu Pape Mourtala Seck bu baax sa Pape Mourtala muy nit ku baax ku ñàkk caaxaan macha allah ah kon bu ñu ñëwee ci dëkk bi macha allah ndog biraan ngeen bokk ndey te yow macha allah ngay kenn di ci sëriñ bi loo sàkku ci sëriñ bi day yomb. waaye moom mii bu ñëwaloon boppit mu yomb ndok ba mu la yónnee nag macha allah a ah, honorable ñu ngi lay nuyu bu baax dina wax ni góor gu baax moo yor jigéen ju baax waaye jigéen ju baax it mooy ànd góor gu baax li nu gëm moo di sëñ seex mi baax na lool lool lool waaye li nu gëm mooy gënu la waaye yow it gënoo ko yàllaa ñu ko jàngal innal muslimina wal muslimaati moo tax sama waa ji sëriñ ma di ko sek borom yàlla nee na mu ne ma boo sikkee sa soxna nan nga ko nëbb ma ne ko lu tax mu ne ma boo ko waxatee waxati ko rek ña jàng am xam-xam dinaa ñoo yem de moo tax yàlla boole leen yàlla di juum ñu war a ànd rek lay boole ñu ngi nuyu ñin fi fekk ñëpp kalifa Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax Cheikh mi présenté na ma la ay yoon billahi na ma yéen a bokk tur yéen a bokk sant billahi wallahi talahi ay yoon sëñ bi boo nga ñëwee yaa ngi ko fekk place ijaab ndax du ñoo julli tàkkusaan ba noppi mu bëgg a jëm si ci mu ñëw wax ko mu ne ko ah ma ne ko biraan tey nga bàyyi bu ñu jógee sa mu ne ma déedéet bu dafay guddi heure bii moo baax sëñ bi ne nan dem rek ma ne ah fañ jëm de am na sans ndax mi ngi nii dafa sëlmal ba génn kursam bëgg a def laa si moom rek biraan wax lool kon mu mel ni macha allah cër yi ak xel mi yëpp fi mu ne mi ngi ci laasim kon fu mu toog fu ne ma ngi fay laasim kii nag ni nga ko xamee seex noonu nga ko xamee moo tax nga sakku mu dugg si ci kër gi macha allah te lu bees lu ne di nga koy beesal li bees moo di lan heure bi daaw fekkul soxna jëmi tur wii ko dab dab tey booba yàlla nëbb na ko pourtant turu suba waat kenn xamu ko ci ñun de. yan nay bu gën bii ci barke yonte bi alayhi salaam ja et Serigne Mouhamadou Moutala mi nga ànd ak macha allah ci Serigne ma dikk jëkk am ci turandoo nga xam ne tey mooy sunu magu yoon ñu jógee Thiénaba Kajoor ndax magam alaaji Taale Jaañ moo nekkoon sunu magu yoon di magi sëñ jàmme mii macha allah alaaji Taala boole noog doomam jee alaaji Ibrahima Jaañ macha allah ñu ànd moom ñëw ki topp ci. sëñ Mourtala ci biir kër sëñ ma dikke di sëriñ moom ma di sëriñ Abdourahman Seck mii ñu ànd ak moom kon délégation bi tuutiwul macha allah ak borom lamiñ wu taq wi nga xam ni limu mu li muy wax ñi rafet ñi rafet dégg rek koy xam ndax lamiñ wéstatul macha allah kon délégation bi ñëw fii jàmm géey mii ci la bokk Alpha Sarr mii ci la bokk ndax maam bi benn la bëgg-bëgg bi benn la macha allah moo tax mi ngi woon ci leneen daa dégg rek sama lami may tari alxuraan mu bala muy def lépp daan na nan daw dem fee. seex ñu ngi ñaan ci barke yonent bi alayhi salaam li nga sàkk ak li nga yëg ba bëgg sëriñ bi dugg fii yan yàlla won ci lu ëpp sa njort ci barke yonent bi ñu baax ñi nag sabaaru dugub lanu fu nu dugg suba sabaaru dugub foo ko sëb loo gaaw gaaw a yëkkati fépp des bu ko fa taw fekkee nu muy mel. maasa allahu te kat ah benn fépp bu nekk ni nu ko yàlla jàngale ci maandu bu nekk benn bu nekk mën naa jur juróom-ñaari téeméeri fépp yàlla na déedéet ñu ne la tax mu ne la ma ca soob la soob yàlla nag ñu ñëpp kenn kenn sam xel mënut a natt ba àgg ci. honorable yal na yàlla saral maasa allahu garaat bi yal na la jig yal na jig seex yal na jig njaboot yal na jig dëkk bi yal na jig département bi. waaye yal na jig réew mi yëpp ci barke yonent bi alayhi salaam yàlla boo ci am benn ndog ci barke alxuraan yan na ci yeneen garaat topp ci barke yonent bi alayhi salaam bokki julli di bokk talibe yi su ko defee sëriñ bi day ñaan te li nu gëm mooy yàlla dina nangu afaa ñuy ñaan lu tax bam naan ñaan leen ma may leen kenn ku fi bay ñaan moo tax maamoom maamam sëriñ Mamadou daan wax ni boo ñaanee ba nopp da ngay rafet boo bëggee sa njulit mat ndax bi yàlla naa ñaan leen ma may leen kenn ñaanagul kenn ku fi bay ñaan kon maasa allah lii seex taamu ba nu dugg ci kër gi yann yàlla won ko ci lu ëpp njortam ci barke yonante bi alayhi salaam def ko ci njaboot gi ci kër gi ak mbooleem kuy so ci kër gi yan na ko yàlla def barke yonante bi alayhi salaam sëriñ bi fa séenee nuyu seex maasa allah sëriñ bi seex mi nit ku baax la sunu xamee ëpp na fanweeri at te yàlla ak sa wóyul la tax mu fonk ma moo ma mag fuuf waaye wàcc na ci otoom ma nekk ci yoon mu wàcc lu jox ma loxo rek dugaat otoom dugg na ci otoom may dox mu gaare samay tànk na ma sëñ bi yëgal foo jëm ma ne ko barab sangam mu yóbbu bu ma àggee mu lambaat li ci poosam na ma booy dem nga jël ci oto bu la yóbbaat xamee nan bu yàgg billaahi loolu lépp nag li taxoon mu di ma ko defal kenn taxul ko du sa wéju kon bu la fi yàlla indee dina la seedal loolu kon li mu sàkk yal na ko yàlla defal ci dara ca yonte bi alayhi salaam honorable delluwaat nañ di la ñaanal yàlla macha allah yal na la garaaj bi jig ci barke yonte bi alayhi salaam boole nañu ceeb ba tey macha allah loolu nga nu jàppee suñu waajur yi ñu leen daan seexale bay Amari Njaay ak bay Talla Gueye macha allah loolu la nuy dundal kontaan nañ ci ñuy bi la fekkee fii billahi laa wax xamuñu woon ak mbokk waaye kontaan nañ beneen kontaan ngir yàlla sa présence mel na ni Pape Mor Gueye leen fekk Baye Talla Gueye leen fekk. sëñ Pape Mourtala daal fexeel mu xàmmee ma ba ba ma ne ko sec mu ne ma Seex Njaay. ndax noonu laa meloon ak papaam. ndax laa meloon ak baayam. papaam fu mu saa ñëw mu ma sa ñëw man Khalifa Ndiaye mat naa ci seede. gisante nañ fa gisante nañ fa mu ñëw nuyoo fa. fu ma ko joxe loxo. mu nuyoo Serigne Madické. muy muy mu jaar. ne ko Seex Naam Njaay. keroog ba may commencé sama tabax bii. keroog bi may commencé sama tabax bii. ba ma ko ko waxee. ba ma ko waxee. dama ni àgg jàmm. dana ma àgg ak jàmm rek. ba ma dellusiwaatee. ba ma dellusiwaatee. ni ko àgg na de. ni ko tabax ba àgg na. waaye sàkket yi de moo des. waaye sàkket yee des. mun ma sàkket naa ko ba pare. mun ma sàkket naa ko ba noppi. bu leen neexee ngeen xool. bu leen neexee xool leen. kon nag. kon nag. ñun ñun amuñu lu dul waa cekkeen. lu dul waa cekkeen. kii nag. kii sama soxna si. li ma bëgg wax ci moom lépp. li ma bëgg wax ci moom lépp. su ma taxawoon di ko wax su ma taxawoon di ko wax. jant bi mën na ma fekkaat ëllëg fii. yiir na ma guddi yiir na ma guddi nag. yiir ma bëccëg yiir na ma suba yiir na ma ngoon li may waxit samay dëkk ak samay mbokk ngi nii mën nañ ko seede bëgg na sama sak sama sak bi mu bëgg moom it yal na ko yàlla sagale noonu ci kaw njabootam barke Seydina Mohamed bu loolu jàllee ñii samay dëkkandoo lañu ñoo ànd di liggéey ñoom ñëpp kenn ku nekk ñoom ñëpp ku nekk daa bàyyi soxlaam boo yore soo oto nga gaare boo yore sa oto gaare boo toogee war a liggéey tey nga gaare ko tey boo waree liggéey gaare nga ko ñëw fii ngir yàlla ak man kon nag moo tax ma ni sëriñ bi. moo tax ma ni sëriñ bi. ñii seenu ñaan. ñii seenu ñaan. bëgguma mu diw xeer. bëgguma mu nekku xeer de. ab birig laa bëgg. birig laa bëgg. teel mu ne këpp teel mu ne këpp. ci barki yonent yàlla Muhammad. yaakaar nañ la ci. loolu daal moo ci nekk. di sant di gërëm di sant di gërëm. di ñaan yàlla di ñaan ci yàlla. nga yàgg fee ñëw yàgg fee ñëw sëriñ bi. yàgg nu fee fekk. may ñu ci yàlla defal ñu kattan. yàlla defal ñu kattan. lépp lu nu bëgg. yàlla na ko yàlla defal. barki yonent bi alayhi salaam. wallahi delluwaat na santaat yàlla bu baax julli ci njol makka alayhi salaatu wassalaam ñu ngi nuyu waa kër gi ñépp di jiital soxna Penda Njaay mii ci nuyu bi moom bi nga xam ni mooy magi cheikh mii ak njaboot gi ci des yëpp di ko siyaare di nuyu sëñ seex ci boppam di ko siyaare du nuyu honorable député di ko siyaare di nuyu xariti seex yu baax yii yëg seex ba ñëw ci këram gi di leen siyaare xalifa di nuyu sëriñ Jàmbe Gueye mu baax mi di ko siyaar moom jàmme di ko jaajëfal ak doomam ju baax ñi Alpha Sarr di rafetlu seen taxawaay yi bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen barke ci liggéey bi yàlla dafa leen ci ndam yàlla dooli seeni wér yàlla dooli seen moyen seen taxawaay moom ñëpp a ko xam ci rafet moo tax ñëpp leen war a ñaanal tey ñëpp a ngi leen di ñaanal yal na ko yàlla nangu biraan yow it ñu ngi lay nuyu bàqule di la sant di la jaajëfal di kontaan ci yow bu baax fu ñu toll rek ñu ngi lay jaajëfal nag di la ñaanal yàlla ndax sa taxawaay bu rafet ci li feeñ ak li nëbbu fuñ la fekk rek daanaka sunu jaaxle jeex na biraan a ngi taxaw suñu wet lépp lu ñu soxla mu daw lijjanti loola dem ñëwaat yan na yàlla dolli laa taxaw barke Dembo Njaay la am doom tudde ma ko loolu nag doy na nit booy wax ak moom seen diggante ba caag nga ne tudde na ma doom loolu mottali cofeel la yal na yàlla barkeel ko sëñ Seex Njaay kontaan na nañu lool ñu ngi ñaan yàlla ñaan ya sunu waajur ñaanaloon sa baay mu nangu sunu waajur ñaanal la ko mu nangu te kenn rek nangu ñaan yooyu delluwaat nañ ci kooku nangu wa ñaan yi ko ñaan yaakaar ji nga am ci ñun ba ñu egsi leen ci kër defal ma fiy ñaan jooju yaakaar yan na ko yàlla mottali kër gi yan na yàlla ñotti fi bépp xéwal yan na yàlla dàq fi bépp lor yan na yàlla dolli fi jàmm yan na yàlla dolli fi ndimbal yan na yàlla dolli fi juboo yan na yàlla dolli fi fajuk aajo ci li feeñ ak li nëbb kontaan nañu bu baax ni ko Khalifa Ndiaye waxee rek wallaay boo yónniwul woon biraan sa tànk yi nga dox si ba ci ñun sàkku lii ci ñun yaakaar na ni baat ak tontu lay doon ndax sañu ñu ko bañ ndax kër gi sunu kër kon bu ñu fi ñaanee waaye sunu kër lañ ñaan ñaanal sunu bopp kon kontaan nañu bu baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci taxawaayu démb yi nag ak taxawaayu tey yi njaay te yëpp rafet na yan yàlla gën ko rafetal. a ah, di ñaanal sa soxna si nga xam ne ñu ñëpp na nga la yor sunu baat soxna Ndey Ja honorable soxna Ndey Ja garaat bi ko yàlla tappal yan na njiglaayam yan na guy yan yàlla defal ko ci barke yan yàlla gën ko jubale ay kilifaam te it garaat bi yan na gën a jëm kanam yàlla mën na ko nag yan lii nga seede ci moom en tant que sëriñ ak muy seede yoo xam ne seede yi ngërëm la ak seede yi xol bu sedd loolu de mën na koo may lu ne fa tabarakallahu kon jàpp nañ ni lu baax lii mu am ginnaaw la yàlla seede ak seeni ngërëm ci moom waaye moo ko ko may kon soxna Ndeye Dia lu mu lu woon yaakaar naa ne doyul fa tabaarakallaahu tey it yaakaar naa ne da koy yokk waaye du ci wàññi dara kontaan nañ ci bu baax yal na yàlla barkeel yal na yàlla taxaw yal na yàlla suturaal ko gàmm gii fi indi yal nañ ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin te lépp nekk njariñ ak fajuk aajo yàlla mën na ko yal na ko yàlla def. kontaan nañu bu baax yii kàddu rek moom lañ ci doon yëkkati su ko defee li ci des ñu mottali koy ñaan yal na ko yàlla nangu kenn ku nekk ci ñun mu jàng Fatiha jàng ayatu kursi yi ñetti alam nasara falaqi naasi salaatul fatih ñaanal ko moom Cheikh moom ak njaboot gi yëpp seen yéene yal ko yàlla mottali te mottali waale ñu suñu yéene bismillah ñu jàng ñaan gi. amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin bismillahi rahmaani rahim na solo naan soppal ba si am foto so innama innama bismillahi rahmaani rahim na solo fala in sharri ma khalaq min sharri ghasiqin min sharri ma khalaq amin ya rabbal bismillahi rahmaani rahim na solo nas malik nas malik amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal amin amin